ana ñi doon laajte nii ndax Mahammed Boun Abdallah Dionne bëgg naa nekk candidat Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle yi nu jëm tontu li mi ngi ci biir réew mi quotidien lii quotidien dina xam le ni Mahammed Boun Abdallah Dionne li mu xam le moo di bés bu buñ ko joxee brassaaru capitaine bi mu daal di koy takk dina indi ndam Macky Sall ci atum 2024 bi lee laas quotidien dina xam le ni Mahammed Boun Abdallah Dionne aw tactique yu nga xamante ni mu ngi koy def ngir Macky Sall daal di koy tabb mu doon candidat Benno Bokk Yaakaar ci élection yi ñuy dëgmal Vox Populi mi ngi fësal ci xëdam mu njëkk photo Boun Dionne photo Abdoulaye Daouda Diallo ak photo Amadou Ba kenn ku ci nekk nag am na say mbir yi nga xamante ne yaa ngi koy def ngir ñu tabb la nga doon candidat wu Benno ci élection yi lee Abdoulaye Daouda Diallo ay ñooñom ñi ngi Ba moom ay ñooñom nag nee na waaw la ñoo wax Fass Boy ca jamono jooju nag ñi ngi jooy ñi nga xamante ni moo di seen doom yi faatu ca waaxu Cap-Vert yi Le Quotidien li mu xam ne moo di lu ëpp juróom benn fukki ndaw faatu nanu xamante ni moo jóge woon ca Fass Boy am na ñenn ñu nga xamante ni xettali nan leen euh, foofee ca Cap Vert ñeneen ñi ci des nag ca Maroc lan leen xettalee ca jamono jooju nag laas ba futt démb xeex-xeex metti yàq yu bëri foofee ci seen dëkk ba Sud Quotidien dina xam le ni mbëkk mi moom ba léegi jeexagul ca jamono jooju nag professeur Aly Tandiang bu UGB mi ngi ñuy xamle ci biir Sud Quotidien ni mbiru mbëkk mi nag kenn du ko saafara ci ay ministères yu ci mel ne de l'intérieur mu jeex fi ba faaw ca jamono jooj nag 24 heures yéen kaay dina xam le ni ndaw yi moom dañ leen bàyyi noonu rek ñuy faatu ci waax yi nee na mbir mi buñ ci bëggee am saafara foog ñu daal di xam góom bi fan la nekk bés bi la jour dina xam ni Fass Boy jamono ji nag danoo mer nguur gi ba futtu tribune dina xam le ni Amadou Ba ca jamono jooji moo amul benn saafara ci xëy ndaw yi la tribune ni loolu mooy wax ji l'observateur nag ca jamono jooji mi ngi xëyee ci mbir Mama Koundoul di soxna si nga xamante ni moom moo réeroon fukki fan ak ñeent ci weeru bi weesu te xam le ni ana ëmb bi l'enquête yéen kaay yi ba noppi ñi le di agresseur am daal di jël li nga na ci biir l'enquête yéen kaay yi maman kundul jamono ji nag mi ngi ci loxo yoon ba mbir yi di leer libération yéen kaay mi ngi xam le ni ginnaaw bi nga xamante ni enquêteurs yi dañ koo déglu li mu xam le moo di dañ koo yóbbu yóbbu ci benn kër gu nga xamante ni àggul mu daal di wasin doom bu jigéen ba mu ca noppee ci la agresseur yi daal jël ki nga xamante moo di doom ji yóbbu daal di koy bàyyi ci mbedd kasoor yi muy taxawaalu di mër moo doon jip ni na ay ravisseurs yu nga xamante ni maanaam ay agresseurs yu nga xamante ni leen daal di teg loxo foofee ci sàngalkam loolee dara wéru ci mama kundul moom nag démb yóbbu nañ ko fa nga xamante ni moo di hôpital di xool ndax wasin na wala wasinul wala mostan ëmb sax source a tey nag li mu xëy moo di mbir Ousmane Sonko li mu xam ne moo di Ousmane Sonko wér-gi-yaramam mi ngi gën di sooxee waa FRAPP ci biir Vox Populi ne yéen it bu leen fàttee Hannibal Djim moom it mi ngi ci grève xiifal ci biir kaso bi waaye ba léegi saa suñu xëyee rek li nga xamante ni moo di wér-gi-yaramam di gën di sooxee yoor yoor ngi dalal ki nga xamante ni moo di maître Ousseynou Fall moom mi nga xamante ni bokk na si kuréelu avocat wu Ousmane Sonko moom mi ngi joxoñ baaraamu tuuma ki nga xamante ni moo di Ismaïla Madior Fall nee na luñ jiik mooy njàkk lépp lu nga xamante ni dal naka rek Ismaïla Madior Fall moo ko teg les écoles yéen kaay moom mi ngi dikkaat ak ñun ci mbiru Fallou Ndiaye di xale bu nga xamante ni moo amoon juróomi at te ñu fekkoon ko seen kaw terrasse foofee ca Sam Notaire mu daal di faatu enquête bi nag mi ngi seetal ki nga xamante ni moo di tàntam mi nga xamante ni moom lañ joxoñoon baaraamu tuuma sport ak stade yéenekaay Iliman Ndiaye ak Ismaïla Sarr bu Olympique de Marseille jamono ji nag ñu ngi ciy jafe-jafe ginnaaw bi nga xamante ni Panathinaikos moo leen éliminé far yi ñu génn ngir ñu bañ a dem Ligue des champions nee na ñoom nag déwoon duñu dem fa nga xamante ni moo di Ligue des champions ca jamono jooj nag sunu dina xam le ni combat rëg-rëg ak bombardier taxaw na namm nañ kaa bëri ñaar fukk bi di ñëw